li dox suñu diggante ak koor matatur ñaari fan fii ci marché Ocass bu tuuba jaaykat yi fa yëngoo tàmbalee gu ñu cee gis seen bopp ñoom jaaykat yi diñu xamle ne li ko waral du lenn lu dut gi nga xam ne nemmeeku nañ ko ci njëg gi lii di bisaab bii ba ci geex kenn mënu ko laal ñun daal seeraay gi moo na xaw a jaaxal bu ñu sañoon daan seen client yi dañ leen du jaay lu xaw a yomb lu oyof waaye nag moom basaab bi moom fi mu toll nii dañoo seeral njëg yi ba kii daal moom am nañ ci xaw nañ ci am kersa daal bu ñu sañoon daal mu gënoon a yomb waaye basaab bi moom seen saay boo xam ne dafa manqué ren moo tax waaw waaye noo ngi sant yàlla bu baax ak borom Touba. jinjeer bi moom daaw la gën a seer ndax demoon na mais ren moom mi ngi ci 1500 dafa yokk sax waaye 1000 francs rek lañ daan jaay waaye koor gee tax ñu yokk ko même daqaat jee daaw la gën a yomb waaw ndax ren mi ngi ci 600 kilo 500 dong la woon fan yi waaye 5 600 dong kii dong lan daan jaay 500 waaw. ba saabu xonq moo gën a yéeg waaye li mu ko gën a yéeg bëriwul ñaar fukki dërëm rek la ko lañ rawante waaw ndax ba saabu winto bi noo ngi koy jaay pot pot téeméer ordinaire bi noo ngi koy jaay pot juróom-ñett fukk weex koy jaay juróom-ñett fukk waaw. waaye koor moom suy ñëw daanaka yu bari day yokku ndax ñu koy soxla day bari moo muy buy bi muy bisaab bi muy jinjeer bi mhm. ñi koy soxlaa bari moo tax li ci bari day yokku daa moom bisaab loo am am ko buy loo am am ko ren nag moom dañoo seeral yëpp moom waaw ren daal moom neexul dara ndax dafa seer loo laal daal kenn mënu ko cee laal daal dafa seer te boo ba mee sa client bu démb nga jaay ko lu yomb mhm. waaw ndax lu yomb rek mooy yërmande ji googi la yokkute dem na ba ci naanaa ji soxna si xam le ni dañoo mënta jot ci naanaa ji ñuy bàyyee ci gox bi loolu tax ñu jëndee goog ndakaaru ngir man koo jaayaat. naanaa ji kay moom yombul moom ndax fi ne noo ko doon jënd takk ñaat téeméer takk ñett téeméer tey na nga koo jaay takk juróom ñett téeméer tumbut moom itam ndax Dakar lay jógee moom ndax waa ndokk moom bu ñu waxee ñu ne duñ góob suñu ndax naanaa bi dañ koy bàyyi ba koor ga nangu noo góob noonu naa Dakar yi rek lañ mën a jënd fi mu bu dee la jëm ci tàndarma ji njëg gi soppeekuwul jaaykat bi dañu xam ne ne tàndarma am na bu baax a baax. moom wax dëgg tane na tane na niñ ko daan amee wax dëgg yàlla fi mu ne moom ndax wax dëgg am na tàndarma am na. fi ne moom wax dëgg niñ koy jëndee daawuñ ko ni jëndee wax dëgg yàlla moom bu dee dëgg la yàlla bëgg ni koy jëndee fi mu ne nii daawuñ ko ni jëndee wax dëgg yàlla. Euh, prix bi daal moom daanaka euh, yëmagut yëmut fenn mën naa ne ndax dangay dem ci magasin na nga jote bagage bi noonu nga koy mën a jaayee rek boo jëndee 8000 da nga mën a jaayee 1500 ndax yow it nga mën a mos dara noonu daal laa ko gisee man wax dëgg yàlla. weeru koor di weer bu bari njariñ weer bu barkeel waaye di weer bu bari ngëneel loolu tax client yi di sàkku ci jaaykat yi yu gën a bàyyi xel askan wi ci njëg yi.